ñëpp dégg na ko loolu yépp nag nekk ay jafe-jafe yuy taxaw ci kanamama waaye moom dafa am nu mu koy faje dafa jël lépp dellawaat suñu boroom xam ne lu mënti am moom la loolee waral moom Ousmane Sonko lii la ca wax man yàlla laa gëm yàlla dama koo gëm wóolu ko dama koo gëm wóolu ko moom kese nag ma jël sama lépp teg ko ci loxoom lu ñëw rek mooma bu neexee mooma bu naqaree moom la bu neexee alhamdulilahi bi ni'matihi rek bu naqaree alhamdulilahi ala kulli xaal waaye lépp moom la rek suñu boroom mooy jël jaamam teg ko ci yoon tegal ko itam ay ndigg sërëxa di ko tester xool kii fan lay mujjee par rapport ak man li ma bëgg ci moom dañuy faral di wax naan suñu boroom bu la bëggee daf lay teg ay nattu jël yu métti métti teg ko ci sa yoon ngir xool ndax yow mi li di nga continuer di ko gëm te itam di nga tegu ci njub njub googu ci la Ousmane Sonko nekkoon ànd ci ak ay nitam Bassirou Diomaye Diakhar fay bokkoon ca ñooñu gis nañu ne comme ni mu ko waxee suñu boroom teg na ko ay nattu ba doonul président de la République du mu jël delloowaat ko suñu borom moomu lee moom Ousmane Sonko soxoru ci benn yoon ndax fóot na xolam ci lépp luy kiñ kiññaan ba jël cër bi ko suñu borom joxoon delloo ko kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye désigné ko askanu Sénégal tànn ko votel ko tey moom mooy dégg son excellence loolu yëpp lan moo ko waral suñu borom moo ko natt moom Ousmane Sonko teg ko ay coono ba yóbbu ko ci niveau bu kawe lool moo di jël sa cër dénk ko sa moroomu jàmm te muy lu jafe lool ci jamono ji ndax képp kuy chef de parti boo demul si ñi la war doo ci nangoo jiital kenn c'est parce que loolee da nga ciy sóoraale ëllëg ñu daal di lay war waaye Ousmane Sonko defu ko c'est parce que tout simplement ni mu mel moom la ki mu joxoñ daal di mel moo waral kóolute googu am ci seen diggante waaye lépp li ko jiitoo mooy nangul suñu boroom te nag ku nangu suñu boroom li mu dogal sa xol du mës a jeex waaye itam di nga gën a moom suñu boroom ay mayam itam du jeex ci may yooyu nga xam ne suñu boroom da koy defal jaamam war nañ ci gën a bàyyi xel bu baax te xam ni mooy seddale ay mbiram di ko dénk ku ko neex te li mu may Ousmane Sonko ci réewum Sénégal ku ko nanguwul daa da ngaa lool moom suñu borom jamono bu nekk day am nit koo xam ne ñu borom day am lu mu def ci moom loo xam ne doo ko gis ci keneen ay noonam sax dañu koy bëgg au fond waaye duñ ko mës a fësal ndax dañuy xam ne waa jilee mënuñu ci moom leen lenn jéem nañ lu nekk waaye bu waxee rek képp ku meroon gii fa képp ku jaxle woon gindeekoo lu muy gën di dem nit ñi di ko gën di bëgg jamono ji loolee la Ousmane Sonko am ku yeboo daal di ko koy nangu la moom ak le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye li gën a tax nag nit ñi bëgg leen mooy seen sincérité triché wuñ benn yoon ci la ñuy wane te loolee Sénégal daf ka raflé woon bu baax a baax ndax way politique yi lenn moo nekkoon seen yitte mooy ñëw naxtaan ak askan wi amaduwe leen jox leen ay koppar ñu jox leen seeni baat ñu jël ko tàmbali di ko salfaañe di ko dëggatee duñu leen respecté duñu leen jox cër duñu leen wegg duñu itam xool li nga xam ne moo gën ci ñoom ñu koy def loolee moo waral chance bi suñu borom jagleel ñun réewum Sénégal war nañ ko téye ak suñuy fukki yoxoo ndax kàddu Ousmane Sonko yi ñu déglu sànq ku ko dégg xam ne waa jile mi ngi sóoraale bu baax a baax ne li mu doon du moom suñu borom la te nag mën na koo rocc ci moom heure bu ko neex loolee moo tax xel mu dal ñu am ko ci mooma jàpp ne ak lu mënti xew moom du trahir te itam dina xam ne li ko yëkkati du mooma kon lépp lu mu ci jéem rek ngir def safaan mën naa mujjeewaat këpp ci moom Sénégal yaakaar bu rëy la am ci Ousmane Sonko ak président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo waral nañu leen ñaanal mission bi ñu am ñu daal di koy réussir ndax Sénégal dong moo leen ñor kon mu mel ni Ousmane Sonko lu mu métti métti coono bu mënti dund jafe-jafe bu mënti présenté wu ci kanamam lenn la koy fajee benn solution la ci am mooy jël lépp dajale ko delloowaat ke suñu borom ne ko bu neexee yow la bu naxaree itam amul benn objection boo xam ne da ko ci am fàttaliku laata Macky Sall di ko téye di ko tëj ci kaso bi moom Ousmane Sonko li mu waxoon mooy sama candidature ci askan wi la dépendre waaye jël naa lépp jox ko suñu borooma lu mu tudd ci man kenn mënu ci lenn moo moomee noonu la ko ko nangulee moo waral bañ ne ko munoo doon candidat xañ ko ko dëgg te ay àqam ak yelleefam lépp la jël dellowaat suñu borooma moo waral le choix du président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon waa jilee moo goree te xam na itam bu baax a baax li nga xam ne mooy pesé ci ay mbaggam kon nañu leen jàppale ñu defar réew mi xool naka la ñuy def ngir génne sénégalais ci jafe-jafe liggéey yu nekk loolu mën naa nekk c'est bien possible il suffit kenn ku ci nekk ci ñun na def ay sacrifice ngir réew mi mën a baax dañu bañ a jiital benn yoon suñu ay intérêt personnel intérêt personnel yooyee mooy waral léeg ngay dégg nit muy yëkkati yenn kàddu yi naan man li ma ci dacc man li ma ci def fàtte ne am na ñeneen ñu mu xamul ñu mu yëgul ñu ko dàq liggéey gën ko cee def te kenn mosu leen dégg ñu wax am ci itam ñoo xam ne seeni bakkan da cee des ñenn ñi dund ci coono yu métti lool loolu yëpp xew ci réew mi ñuy fëgg seen dënn ba tey yaakaar ni dañoo war a cëru jàpp ni dañoo war a séddu ci gato bi lii nga xam ne ay kàddu la Ousmane Sonko yëkkati ko nañ ci bàyyi xel bu baax lépp lu mënti xew ñu jël ko delloo ci suñu borom waaye teewu la ñu teg jéego yi nga xam ne moo ci war a ko defee ëllëg dinañ xam ne def nañ suñu waree fa li ci des nag comme ni mu ko waxee suñu borom mooy mottali ñu gëm mooy Sénégal gi mën naa baax mën naa soppeeku mën nañ koo defara kenn ku ci nekk na ci bay waaram def ci li ci wara bu ñu ko defee rek mën nañoo am ndam te bu ñu kenn tumm ko ci jëlee ay privilège au contraire dañu def sacrifice même ñun bu ñu ci jariñuwul suñu ay doom suñuy sëta dinañ xam ne bàyyil nañ leen fi lu baax li waral duñu tàyyi mukk ci di wax naan Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye mën nañ am yaakaar bu rëy ci ñoom kàddu yi nga xam ne duñ ci doyal mukk dong moo ko waral ma seddal lewaat yéen billaahi wallaahi wa tallaahi du ngeen a toog ba ne am nañ déception du mus billaahi wallaahi wa tallaahi du ñu mus a toog ba ngeen ne am nañ déception mukk ci àdduna am na loo xam ne góor moomu ko te gëm nañ ne ay góor lañu réew mii jaral nañu mu ne waaye jaral na leen mu ne loolu moo ñu boole kàddu yi lee li muy dëggal mooy Ousmane Sonko xam na bu baax a baax poids bi pesé ci kawam bés bu xëyoon suba trahir sénégalais yi changé am beneen taxawaay moom moomee atteem moo doon gën a métti lool liñ teg Macky sàll ak ñeneen ndax dafa woo sénégalais yi ci lu baax waral ñëpp fekk si ko ba tax na trahison moom gëm nañu ne du mës am suñu diggante ak moom gars yi ci beneen wàll bi nag dinañ def seen kéemtalaay kattan ngir jéem koo jaxaseex askan wi askan woowu dafa rafle na feebar na ñàkk naa jàng bëri na lu ko manqué lool alors que koppar gu bëri mi ngi ci réew mi am ci biir suñu suufa ay richesse yoo xam ne ñi ngi koy exploité te ba tey mënuñu cee gis suñu bopp boole kooka dund gu cher lool dund gu métti lool la loolu yëpp la ñuy xaar les nouvelles autorités daal ci teg ay jéego ñu ngi ci sax ñu ngi liggéey ñu ngi jéem a jubbanti lu ñu fi fekk ndax ñaaw na loola anam bi nga xam ne Macky Sall ak ay nitam bàyyee nañu ko réew mi lépp daal di koy caxat caxatee waral mission bu FMI ñëw ci Sénégal di ñu sànni ay xeer ku ko dégg yaakaar ni autorités yi fi toog tey Jomaay ak Sonko ñoo mënul alors que mbir yi demeewul noonu dégg nañ Mimi Touré lam ca wax lii yëpp ñuy dund ba tey jillee conséquence yu nguurub Macky Sall moo ko daal di waral loolee moo tax nag ñun nañ leen jàppale muñ te xaar xam ne réew mi dina soppeeku ko réew mi dina neex bëri na ci yoo xam ne mi ngi fiy am tôt ou tard dina dañ tôt ou tard dina soppeeku nañu muñ rek mbir yàggatul la ñu ngi jëm ci reddition des comptes lépp dina tegu ci yoon gars yi dinañ goqi suñuy koppara boole kook ñoom ñu teg ay politique de développement yu ñuy permettre ñu mën a dem vers des lendemains meilleurs boole kook assemblée nationale bi nga xam ne le novembre la lépp di leer majorité bu confortable moom la président bëgg ngir mën a gën a wéyal ci coono bi ñu nekk noflaay ñu mën koo sentir ci suñu réew mii di Sénégal AGT News